bon <laughs> comme que comme que comme que yéen APR euh, dafa amoon APR 2 am APR 1 euh, <laughs> loolu lañ ko mën a tuddee quand même. non APR ak APR 2 amul. benn non loolu moom parce que euh, ñaari ñaari comité électoral moom ngeen demee ci biir élection yi. voilà bon ñaari comité électoral moom lañ demee mais loolu sax bon je pense que nii moo moo gën a permettre président Macky Sall ndam lu yaatu li mu am nii aussi mu am ko waaw mais parce que xam nga ay nit aussi. duñuy and di liggéey dañuy waxante deug suñu démé demee ñu déggo ku nekk da ngay jaar ni da yow bo ci fété won non man ma ngi won ci ma ngi won ci APR comme li ngeen ko waxee APR 1 bi bok <laughs> donc non ma ci bok man comité électoral bi nga xamanteni que mom lañ reconnaître man fofu la bok léegi kan mo fa nekk ci Liré parce que gis nañu benn bi euh, maire le maire Diagne Meng mom mo fa nekk benen bi le ministre Abdou Ndéné mom mo fa nekk ak Seynabou Gaye Touré. benn benn comité électoral mo am parce que le maire Diagne Meng mom moy plus du potentiel bu bu commune bi. parce que le président dafa wax ni commune yëpp maire ba mooy plénipotentiel bi moom moo am interlocuteur entre le le le préfet et at comité électoral bi yaa ngi dégg. Diagne Sy Mbengue moom mooy bu commune bi communal donc moom moo doon wax ak préfet moom désigne désigner ay mandataires yaa ngi dégg mooy désigner représentant bureau de vote mais mais plénipotentiel ak coordonnateur mais ah, ba pare lan moo waral lan moo waral euh, même bu nekkee moom lañ def plénipotentiel bi. lan moo waral ñi ci des ñëwuñu rabaatru nekk ci ginnaaw mais di créer beneen comité. waaw mais xëy na loolu ñoom loolu man nag xam ma nekkuma ci xolu nit ñi tamit du ma nekk di di juger doomu aadama ci ay raison am mais xam naa ne daal li nga xamante ni que moo valable te président teg ko fi et le plénipotentiel départemental aussi xam ne def na ko moom muy Mamadou Diagne Sy Mbengue moo nekkoon plénipotentiel moom plé bi nu dajaloo comme euh, benn bokk yaakaar ñëpp dajaloo maa ngi ci réunion bi. momit mo mu yaatal ne moom mënul nekk plénipotentiel nek coordinateur donc coordinateur bi da koy dellawaat comité bi ñun ñoy décider xol kan lañ koy jox ben bokk yakar ñu andu euh andu PS vraiment ci bir ben bokk yakar ak le président Macky Sall mu nek lo xamanteni andu bo sincère la ñu gis le euh, suñu président Ousmane Tanordien ne mu dare président diko ko donc à ñun ñep ñu d'accord ni non nañ jëlat coordination bi jox ko PS vraiment mouvement ya fa nekkoon ak yëpp ak parti politique yëpp d'accord ci lolu ñu jël ko jox ko sen coordinateur communal fi muy euh, Lamine Diouk di sama grand ñu bokk ben koñ mom aussi ñi koy nuyu. donc buñ la buñ la euh kon yeen yene yoron APR bu bu bu bu dëgër bi. <laughs> parce que non ñun ñoo nekkoon ci kayit yi la preuve moy ñom limay wax ni émission la wax ñom dañ ko sétané en réalité xam nañ ni que ñom bien vrai que figuré nañ en tant que comité man duma len ko bañal mais nak dëgg-dëgg bi mooy euh, benn comité lañ reconnaître te mooy bi Diagne ma ngi dirigé woon jiite woon euh, le coordonnateur Lamine Diop jiite ko parce que ñooñu ñoo am accès di waxat préfet ñoom ñoo am accès ci résultats yi ñoo am accès ci lépp ñoom la président doon waxal ci comité bi la preuve mooy bien vrai que euh, le ministre Abdou Ndéné moom c'est le coordonnateur départemental kenn bañalu ko ko ko nangul nañ ko ko aussi donc bi mu ko doonee lépp loo xam ni moom la ñu coordonné ci département bi coordination département bi moo ko yor yi ñuy joxe bien yi ñuy joxe lépp moom la koy jox mais moom en retour day ñëw teg ko ci loxol euh, politique potentiel communal muy jaañ si mbeng xaalis bi ñu fi joxe yooyu yëpp moom la ko jox donc euh, comité bi ñu nekkoon ñun mooy comité bi wóoru vraiment moo valable wax dëgg yàlla. mais mais mais nan ngeen ni au moins euh, ñaari comité yi. cest à jàngat ngeen ci am résultat bu baax la leen indil wala wàññi na doole ji parce que gis nañu résultat yi aussi à Tivaouane euh, daan na gën a yéeg ci seen côté. non résultat bi au contraire ren la gën a yéeg. ren la gën a yéeg. ah kon baax na kon euh, ñuy wax yeneen yeneen yeneen parti yi nañu nañu wut ñaari comité ci dëkk bu si nekk puisque loolu moom mooy def effet quoi. non non ñaari comité baaxul parce que day sësale ay xol day tax ay ay góor yu war a ànd di di di di ñaawoo ak yooyu ñun dikkuñu pour ñaawoo ak kenn. am nañ droit nak xol li nga xam mo valable ñu and ak lolu en plus man duma walé baña kenn man duma gis ni nit mere jañ si rek man dama wara méré mere ci si wala nangam non non non man suñu pant pense marche pas comme ça jañ ci defuma lu tax makoy méré mere ngi dégg gisuma tamit ah gisuma mo def kenen tamit lu tax mu war ko mere c'est le maire de Tivaouane yalla moo fi def nañ ko ko nangul comme nan nga ñaari comité ñetti comité amul sens li am sens moy de gagner comme li nga wax ni ma revenir sa question da nga ni kon ku gagné école 4 école 4 ñëpp ko gagné man rek duma fon responsable am na responsable yu fa nekkoon le coordinateur Lamine Diouf fa la dëkk même même même kii euh, honorable député aussi euh, Cheikh Diouf waaw bon cheikh euh, ñandoxum la dëkk mais am amna am fi ay représentants yoo xamante ni ñu taxaw ku ci mel ni Ablaye Mboup ak Abdou Sall ñoom aussi tamit ay nit lañ yoo xamante que vraiment jambar lañ ci école 4 ku ci melni Cheikh Abdou Dia jambar la fi ak ñeneen ak ñeneen ñom Jalimar ñom ñep vraiment liggey nañ liggey bu am solo ci école 4 école 4 mom waaw duñ ko seqee mom ñiko ko mom vraiment xamna ni ka ay jambar fi nek mais nak tamit ku ne xamna wax deug yalla nangul sa jambar way dal du wañi dara mais ku ne xamna ki kii et kii daal man lool la ci mën wax ku ne xamna dal vraiment. mais mais damay ñëw ci c'est-à-dire comme li nga wax c'est-à-dire même bu. Euh, nekkee ni ñaari comité am na jàmm am na victoire am na et tout ça cest à lan moo tax après aussi au lendemain des élections ku ci nekk ci comité yooyu taxaw ni moom résultat bi ñu am Tivaouane moom la résultat bi am ci commune bi ak département bi yëpp moom la. waaw mais loolu ku ne sañ na ko xam nga mooy li ma la wax rek ñun xam nañ li ñu liggéey parce yàlla def na en 18 jours xaw ma 19 jours ñun def nañ la tour commune bi yëpp fenn manqué wul. le 20 mercredi 20 fekk na ñun ñu dajal commune bi yëpp su ma jumul ma nekkoon 18e jour bi xaw ma 17e jour bi duma ma jumul mais mercredi 20 fekk na ñun def nañ tuuru commune bi yëpp yaa may dëgg fépp fu ñu war a dem ci commune bi dem nañ fa képp ku ñu war a waxal wax nañoo moom bàyyi woon benn chef de quartier bàyyi woon benn quartier bàyyi woon benn représentant yaa ngi dégg bàyyi woon benn leader politique boo xamante ne que tey yaa ngi jàppale président Macky Sall andal nañu ak sunu maire Diagne Sy Mbengue di plénipotentiaire bi ak le coordinateur ak comité bi yépp dem biñu démé wax ñi ñu war waxal ñun liggéey nañ lo xamné ko wóor nañ ni ñun liggéey nit ñi votel nañ parce que tamit dëgg dëgg dëgg ku liggéey li nga xamné liggéey na mi ngi melni ko tay mbeur mi béré entraîner ba taxaw mu wóor ni ko mom liggéey na ci combat bi ñun woor nañ ni ñun suñu comité liggéey nañ lo xamanté ni ko fi ci tiwal franchement ah duma ma ne kenn liggéeyul de mais ku mu neex nag ni yaa gagné mais leer nañ ne ñun liggéey nañ te li ñu liggéey moom xam na ne moo gagné élection yi fii ci kon euh, loolu leer na parce que ku ne gis nañ bien que ñaari comité moom mais euh, gis nañ ni moom Matar Diouf comité bi mbokkoon mii comité bi àndoon ak le maire euh, Diagne Simeng donc ñoom jàpp nañu victoire bi déjà ñoom même bu ñu ko moomul it liggéey nañ ci lu am solo. du ma ne moomuñu ko ñun ñoo ko moom parce que APR benn bokk yaakaar ñëpp ko bokk ñun ñoo moom victoire bi parce ñun ñoo nekk ci commune bi xam nga tey dañu ñëw ñu ni Diagne si Mbengue yaa géré commune bi Abdou Ndene yaa géré département bi yaa ngi dégg Diagne si liggéey commune am yàlla dogal mu ànd ci ak comité bi ak ñi mu ci àndal ñëpp mante laa bokk yàlla defal ñu sutura ñu am ci ndam lu yaatu Abdou Ndene liggéey na ci département bi yalla aussi may na ko ci ndam donte pourcentage bi egsiwul 50 mais liggéey na yaa ngi mais nak ça ne veut pas dire que ni tay nga liggéey fële kay liggéey fi nga retourner ñew ni no yow ya liggéey fële liggéey fi kon ka ca dess lan la doon def doon dina law ki jël congé nek directeur IPRES tok ni xawma ñaata at jëluma congé ren dama jël congé pour ñëw jappel président Macky Sall kon nit ki nangul ko dal man man lo lay wax man nekuma fi di di raxas ken ak di tilmal ken ñom ñaar ñëpp ken yor ci sama kër ken yoruma ken defaluma ci dara lo xamanteni ko damay taxaw fi de défendre mais nak duma ànd ak Diagne Sy xool li mu liggey tay ji duma ma ken taxaw ni ya mom dam li baye Diagne Sy ndam li moko mom mais mais yeen ci sen bir euh, comité bi ngeen taxaw c'est-à-dire euh suivre nañ len ngeen ni 14 maire nek ci bir commune bi déjà yeen lañ andalon ak euh, ki euh président ki ay maire ñing déjà momit yeen la andalon ta ay maire aussi gis nañ ni mom yeen la andal mais aussi mom ci département bi man nañ résultat yi liko taxaso xeyna a sooxe na ci parce que fuñu yakaron la fofu non dekk mu gagné fu ñu meloon mais gis nañ aussi dañ ko fa gagné eh, gagné gu xawa doy war donc yow lolu ban jàngat nga ci am. non ay miru gagné won ko mel na rek day det ay miru won ko ay miru mo dekkam xama ay miru dafa dekk dafa nek meeru mel na mais mi nga dekk dekk bu ñu wax ngi gis ay miru ken gagné wu dekkam merina dakar mi ngi melni tay commune Tivaouane ni Matar Diouf yaa ngi woote école 4 mais yaay maire Tivaouane yaa ngi dégg école 4 bi ma dëkk ma voté fa gañe fa mais maire bi mi ngi nekk ñandaxum léegi nag maire bi comme mi ngi ñandaxum bâtiment maire bi quoi laa la bëgg a wax ñu gañe nañ ma bureau bi nekk ñandaxum noonu la demee mais commune bi yëpp nag ay maire ñu ngi moo ko gañe mais fa maire ba ne fan tabax maire bi xam nga village yi foofu dañuy jël benn village. non mais mais xam nga aussi loolu lañ mën a wax parce que nga fi nga fi xam fa la chaise bi nekk et tout ça euh, je pense que moom bu nekkoon à la hauteur pour a taxaw. mais moom dëkkul foofu yeewoowu fa xam nga mooy li ma la bëgg expliquer nii xam nga man tey du ma dëkkul ñànd xum yeewoo ma fa ngi dégg tey xaw ma ñànd xum mën naa wax ak ñoom bëccëg guddi xaw ma lu ñuy nas mais kulin gi jaan bi ma yeewoo moom ngi gis la yeewoo yàlla dogal ngi gis ba mu yeewoo daf ko gagné largement yaa ngi dégg mais yeewawul biir Médina Dakhar Médina Dakhar en personne bureau de vote Médina Dakhar lañ ko gagné mais moo gagné commune bi parce que commune Médina Dakhar aussi du Médina Dakhar kese tey jii Tivaouane soo gagné soo pertee soo gagné fépp te gagné woo Kondiaka mën nañ ni voilà da nga gagné dafa perte Kondiaka sëriñ ñi ànd ñoo moom wala dara mais yaa gagné Tivaouane te Tivaouane rek du Kondiaka mais nag symbole la si aussi Médina Dakhar comprendre naa li nga bëgg a wax symbole la foofu parce que moom moom mooy kii quoi mën nañ wax ni que mooy capital bi voilà mais moom mooy capital bi mais nag ça ne veut pas dire que ni gañawul moo gañe commune bi et jàmbaar la aussi nañ ko nuyu de passage parce que wax dëgg yàlla gis naa deux fois bi ñu taxawee ci département bi mu génn alalam def ci ñu ñëwaat fii di meeting meeting départemental président Macky Sall jox ñu 10 millions mu ni bu xët 5 millions teg ci table ji ni kuy dimbali président na teg ci table ji devant moi mm-hmm. kon kooku même duñ ko gañee yéeneem mooy gañee parce que nit di liggéey say millions yëkëti diko tek ci table ji di pour dimbali président Macky Sall sey yene mo nekkon gagné nit ku ñul nak mo lëndam mo démé non surtout kadior da ngay gis ku baax lool am yene def ñu lay jëma rocantal ak dila galgal bëgguñu ko dem do xolé sax danaka lool mo ñu xawa tardé ñun fi ci kadior bëgguñu nit kuy liggéey parce que question personnelle rek ak méré nit ngir dara té en réalité do xolé ba ci biir sa do nekk lo diw def dula ko wax dalay ñakal fayda di wax dara lu am solo quoi yooyu amul sens. ah bien <laughs> loolu leer na gis nañu déjà yéen a ngi défendre euh, ay miru ñi ngi nga xam ni peut-être yéen a bokkoon euh, taxawaay par rapport ak euh, comité électoral bi ngeen taxawal donc aussi ñu ñëw léegi ci local yi parce que liñ naan kuy wàll yaan ko rek sa dëkk daa tëggul puisque aussi yéen yéen a woote wax ni c'est-à-dire seen comité électoral moom mooy bi bi bi gën légitime donc ñu jëm ci local yi te local aussi ku ne xam na ni déjà yéen yéen yor maire muy ki ngeen andal muy le maire Diagne Simeng mo yor maire bi ku ne gis na aussi enjeu bu fofu lay ëppee eh, légui yéen ban taxaway ngeen am ci ci ci ci maire bobu est-ce que aussi c'est-à-dire ñi ngeen ci àndaloon lepp aussi conquérir maire bi ba jot ci gagné est-ce que ñooñu ñep aussi yaakar ngeen taxaway bobu di ngeen ko amat pour mën eh, jëlat maire bi. bon man nak maire bu ñëk ba ñin ci àndaloon euh, fekkuma fa parce que man maire bu njëkk ba bi mi am man Cheikh Tidiane Diouf la doon jàppale moy li wax jaan rek suma sañon Cheikh Diouf mo doon nek maire ndax mom la jàppale won mais maire bi ñu man jaan mbeng la andal at comité bi ñu andal yalla na yalla def bala bobu lepp doon ben ñepp and ñu def ko ben liste yalla na yalla def lolu parce que lolu la ñepp di ñaan kenn ñaanul xajalo mais nak suñu démé ba xamni lolu mënta nek ñun danan danan and ñun ñi nga xamni and nañ ci ci ci présidentiel yi dañu and jëm ci local yi ci katanu yalla waaw té am nañ suñu candidat comme ni nga waxé moy le maire Diagne Simbeng parce que parce que parce que lool motax ñu am euh, taxaway ak xel bobu ci ci ci ci local yi ñu jëm parce que jappelé le président Macky Sall pour mu am deuxième mandat c'est-à-dire yeen ñëpp yeena a ci baag bo leni soti ci sagam fofu ngeen mën ta and est-ce que aussi bu nekké soti ci baagu le maire Diagne Simbeng est-ce que dina yomb waaw non xam nga ñun ñëpp ñun niko ko seq tay du yom nak quand même mais tay du le président Macky Sall taxawé ni nañ def ben liste dal ne diw jitu yaa ngi même Diagne si c'est pas forcé tay président man nako ko wax Diagne mo na mën ko bayil diw nek jité liste bi te Diagne jàpp ni ne nak président lo xam ne ko may ko la preuve moy tay Diagne bi ay miro défé coordinateur départemental ci ci comité électoral bi passé bi président ne ah de baxna na waaye fi Abdou ndene de mo gënoon dafa comprendre ni li mo li le président bëgg. noonu la jappé ni tamit ñooñu nga xamanteni ke moy benen comité bi su len président wowe ñaan len jàpp ni ñom aussi ko len ko nangul président man lool la Me mais mais mais yeen déjà bi président ñaané ça à yeen taxul ngeen euh, nekkat ben liggéey ci présidentiel donc est-ce que même bu président ñaanaté est-ce que dina am impact bi mo wara am ba and bi wara am am. wa bon xam nga bi président ñaané jañ si bayina na man lima xam luma fekke la ak luma maîtriser def na conférence de presse bayyi sol na dalam dem na kër ministre Abdou Ndeye na waxtaan ak mom ñom dafa am condition yu ndon tek teg te ay gor nak duñu andi dañuy xol lu ku nekk yolomale parce que ñun fekk na bobu jël nañ coordinateur bi def ko Lamine Diouf ba pare mais ñom nangu liñ bëggoon moy que dañu imposer won ay poste yo xamné ne automatiquement dañ leen ko jox sino and bi won yomb ah ñu ni leen nak amna lo xamné ñun mënuñu ko comme ñoom it ñu ni ñoom it loolu duñ ko amul duñu ànd ak ñun ñu bàyyi mu set loolu du problème ànd nañ ñëpp liggéey nañ ñëpp gagné nañ mu jeex amul problème fee ñu jëm aussi suñ mënee doon benn ñu doon benn ànd ci suñ mënul doon benn ah ku ne liggéey rek ku ne xam li nga liggéey Tiwaawan rek comme ku nekk naan mën a mën a mën a mën a mais mais mais foofu sax lay neexee mais bu ñu leen seetaanee cest à bu ñu leen seetaanee fi mu bëgg a xam mooy bu ci nekk bu nekkee dafa am ci yéen ñoo xamante ne ñoom dañu beru dem ak seen candidat boobu taxawal beneen candidat est-ce que gagné gi reconquérir daan maire bi dina yomb ci. waaye du jafe ci kattanu yàlla du jafe man loolu laa la wax. waaw kon euh, mbokk yi. je pense que Diagne si liggéey na liggéey na fi te gis nañ ko xam nga le problème mooy Diagne euh, li mu liggéey am amaana ñu bari dañ ci bañ a seen bët wala dañ ko bañ a wax mais liggéey na. té bala ñu ci ag teg nañ ay projet yo xam dinañ fassal liggéeyam ba ñëpp xam liggéey na en plus ñun ñi seex ak mom di and ak mom dinañ ci bay suñu wàll donc ba tay ji du ëllëgé du and amul ah, ñun ñu fexé ba kenn duñu kenn duñu gañe rek parce que xëccio la rek hein ah. aussi par rapport ak euh, communication bi nga xamante ne moom moo parce que gis nañ récemment euh, le maire Diagne bi mu def évaluation par rapport ak euh, présidentielle gis nañ wax lu mel noonu bari na fu muy dem dañ naan ko ñun xamuñu ne woon liggéey ngeen fi mel nii wala président Macky Sall def na fi mel nii donc ne da ngeen bëgg gën a doole seen liggéey ci communication bi fekk dem mooy comme li nga wax rek nga nit moom da ngay liggéey yow da ngay jàpp ne li ngay liggéey bon population bi teg nañ ci seen bopp wala am na ñeneen population bi danañ wax ne que daal ah, mais malheureusement fii ci Kajoor moom dañuy am du mën a ñëpp nag mais na ma yàlla jéggal am na wax ne dañuy sëkk def donc jaan si liggéey na fi man bi ma àndee moom ci tournée ci élection yi gis naa ni liggéey na liggéey yu am solo ci village yi surtout village rattaché yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Tivaouane yeneen quartier yi donc bi ñu ci demee gis nañ ñoo xam ne mooy yëgul tali ñii mooy yëgul ndox ñii mooy yëgul courant donc ñii ñu jël ay machine wàll teg ci dëkk ba ñii mu jël ay bale jox waa dëkk ba donc yooyu yëpp ak yeneen yi biir Tivaouane ñu xool ñaata kilomètre de lañ fi def ak électricité bi ji am presque plus de 2000 lampes yoo xam ne que tey ba man sama buntu kër su mbedd bi su lampe bi brûlé automatiquement damay woo le maire rek na ñëw changé ma lampe donc yooyu mu koy liggéey ñu ngi taxaw vraiment gaañ si def fi dara donc tam communication peut-être ak jota may ko taxaw di jël site comme ñu def di jël site internet yeeg di dem ci rajo di wax naan def naa lii def naa def naa nit ñëpp seen nga mën a yow ma lii man doo xoolee parce que lii duma ci en général te loolu moo waroon da ngeen sax sax dama ci nekk di wax am na ñoo xam ne nag bu ñuy rey béy sax dañuy eh, eh, kii yi ñu eh, maa ngi rey béy wala maa ne ci loolu wax man aw ma sax Facebook na ma wóor yàlla liggéey naa ci tuwaan loo xam ne moom ci doomu aadama yi ah man xam naa ne liggéey naa ci te loolu ay kilifa may wane ci ay ma loolu du sama genre du ma nit koo xam ne bëgguma gis leen moom bëri naa tiitee loolu moom <laughs> Sénégal yëpp xam nañ ko balaa ngi <laughs> balaa <laughs> ah ma yoo xam ne ni que man dama ci wane man xaw ma yooyu quoi voilà donc bilan bilan mairie bi daal liggéeyu ma ci ak ñoom du man maay nekk fii di ko di ko défendre. mais mais yow un candidat ngay défendre un candidat. waaw mais candidat waaw mais candidat bi aussi tamit accessibilité par rapport ak population parce que li nga wax léegi nii dèjà boo amee problème lampe tàkk sa kër le maire kii nga ko Mass Diagne dèjà est ce que loolu du posé problème ba nga xamante ni wala loolu da ngeen ci bëgg a liggéey aussi comme ci ci côté communication parce que ñëpp nee nañ euh, maire bi gis ko yomb même le xalif général Serigne Mbaye Sy Mansour ni koy nuyu di ko ziar parce que. moom aussi am na lu mu ci waxoon. ko yow ça dépend xam nga tamit tey deux têtes de xam nga Tivaouane li ñu bëgg ku mel ni Matar pour chaque jour sooy ñëw chaque jour di lamar lamari yàggee ñu ne kii dafa soof yaa ne ne xam ne la ko mënoo foo toll dañoo Tivaouane am na fi ay adjoint yoo xam ne ñu fi ku ci mel ni le maire Mass Ndiaye mu ci mën mu def loo xamante ni que ma défendre mu ma li ma gis ci ñu ànd ko ci campagne bii nii nii nii sincèrement parle c'est un travailleur wallahi as yàlla mooma ti man maa fi gënoon a contre maire bi may am Cheikh Diouf yàlla rek mooma ma ko waale bañe woon mais ne loolu dootuma dal dootuma waale bañe kenn parce que tamit dootuma mere te mënu ma la te xaw ma la mais moom li may àndal di liggéey mënul ma mere benn doomu aadama boo xamante ne ko maîtriser tuma la loolu mënut ma ko def ci man wax te ko fenn wax dëgg yàlla mais bi mu liggéey tey jii dama neexee wallaay asim wax euh, def fii def na nga dem donc mais bi ma demee ba ci biir nag xam ni que kii lii lépp lépp lépp lép lépp ñu doon wax ak li am ça fait deux mais bilan bi aussi bilan bi euh, même le al à l'entendre bi sax li ci bilan président Macky Sall bu law bu ci biir Tivaouane moom lay def mais municipalité bi en tant que tel am na bilan bien bien que comme li ci équipe am bi muy liggéey loolu ci municipalité mais xëy na sa candidat la war nga mën a indi ay tuuti daal ci loolu. waaw xam nga euh, bilan maire te seen yi dafa am ay fonctionnaire may ma taaru kenn sama commune wala dëkk bu nekk kër laalu aliment amul forage bëggoon naa vraiment ngeen kii ko mais loolu ci programme président Macky Sall la sa PNDL ci programme président Macky Sall la mais mais bi mooy leen demandé ko ak moromu naataangoom directeur bi jiite loolu nga xam ne moo ko nekk kooku ñëw indi ko ko fa donc mairie moo mais bu nga placé bu laa xam dëkk bu amul forage bu am forage parce que pour nga ñëw yaa leen di représenté yaay jotali seen kàddu ci ci président Macky Sall nañ bàyyi loolu bilan président Macky Sall euh, du mooy jël xaalisam naan de defa doon du ma ne di jël xaalisam su di ko def ci toile mais nag am na ay travaux yoo xam ne bii moom mooy jël xaalisam di ko def aussi dafa dafa am euh, budget mooy loolu xaalisu état di du jëlee tey dafa ci tali. kon duñ ne duñ ne bilan président Macky Sall la. nangu ni bilan Diagne Sy Ndande la vraiment ma répété la encore quoi nekk ma fi di ko défendre <laughs> yaa ma dégg mais nag c'est un travailleur li ma gis daal mu def ko ci bi ñu àndee ni ci campagne man yokk na ma courage. taxaw na encore fas yéene àndaat ak moom ci jàppale ko bu fekkee ni moom candidat la incha allahu rabi man moom laa jàppale. bu fekkee ni kon yow ba léegi moom fësalagul ne bëgg na laaj. si moom bëgg na mais bu fekkee président Macky Sall taxaw na ne ko nangam wala moom personnellement toog na ba xam ne kii te moom amatul droit bon à part bu ko président nee wala suñu kilifa yu baaxee ci dëkk bi mais moom en personne amatul droit sax parce que man bu fekkee ne man ak yow ñoo bokk kilifa muy président Macky Sall yow il nga dem utile ay président Macky Sall mais foo dem yow da ngay toog ci sama der bi naan moo woote ne président Macky Sall parce que maire bi nangam sama bopp xam na laa sama xeex na ci logique laa koy man bëgguma ma kii rek man ënd defi soo ne lii du am rek ci nii ay xam kuy kuy kuy kuy jël doomu aadama di ko defee nii au moins kenn xaar ma yàlla ma répété la loolu wallahi asim muy seen bëgg turé suma yaay la suma xarit la ma ko ñu passage muy Abdou Nene di honorable député Cheikh ma yàlla mais ba moom bu am solo tey sax lépp amee gannaaw yàlla moom la sama nit la sama frère la moom aussi ma ko ñu di liggéey fii ci Tivaouane di ku baax wax dëgg yàlla moom aussi tamit aw maa moom benn xaar ma yàlla man ñëpp samay nit lañ mais li ma gëm mooy que nit ki bi ngay liggéey da nga koy nangu ñu ngi liggéey bëgg jël fauteuil bu nit toog warul tax ngay taxaw di wax naan non kii du jàmbaar wala kii nii wala kii laa man bëgguma loolu fii laa wax sax ni la jóg si nit ku baax la parce que dama ko pratique dama ko dund nekkatuma ci parfait sama part du kër di ko di ko di ko xalaat dama ko def du ma def loolu parce que nit ku baax la dama koy wax. wax mbaaxu Diop Sy du ko teree baax su ma ko boralee au contraire man may bon parce que mën na nit ñi di wax naan yow may ñu am kon nag man sànq mais dañoo nit ku baax Cheikh Diouf laa la keneen ak keneen ak keneen mais jaay si du baaxee dañ koy wax pourquoi ko wax baax la. waa li nga wax ni c'est important par rapport ak le candidat sortant ci maire Tivaouane bi muy le li nga wax mooy. doy na leen par rapport ak li mu liggéey doy na leen aussi ci sampal na dem laaja ni lépp a baax du ma ni lépp baax moom personnellement xam a baaxul nit yàlla rek moo mën a matal du na ay manquement moom personnellement di nga def bilan xool moom ku wér xam sa néegi bopp xam ni kat dëkk sàngam woote lu ñu ah lan moo tax woote lu ñu na lii lii lii moo tax moom moo doon xam mooy loolu loolu moom jaañ si na moo koy te loolu laa koy digal sa en tant que frère dina xol ñi nga xam ne voté lu ko ak ñu ak mom lan mo tax ànduñu mom mu jéem a dem fofu lolu vide bobu am ñu jé ko mo man lolu sax la ko diga sa nit ki mom ñepp mën ñu am ak yow ça ne pas dire que ni ki la voté dara bañ aussi fay na question de gis-gis la man ñi ma ba ñu mo leen mais amna naa droit ne diwa ma bay ko man mo lay àndal mo lay jàppale mais ni ko le manqué li nga xamni ne tuwaaw du ni lepp mo nañ ko matal mais li ëpp solo xam ne population Tivaouane soxla nañ ko moom aussi mu ñafe moom mu ah, loolu mu jëm ko def su ko defee aussi dina <laughs> na euh, ñu ngi fii ci TIV Info ci seen euh, deuxième numéro muy émission yaatal boobu tey ñu dalal euh, responsable politique bi nekk ci APR muy monsieur Matar Diouf. ñaanal yàlla aussi nag suñu kilifa yi nga xamante ni que mooy suñu ay waajur. Eh, melni ñu ci kaw suuf di sunuy waajur sunu waajur wu bu jigen sunuy mam ñom ñep ak sunu ay frère ak xalé yi nga xamanteni ke ñom lay ànd di liggéeyandool ak mag ñi nga xamni ñom ñep ñi ngi sama ginau di ma jappalé xamni mat nañ ma ñi mat nañ ma yaay ñi mat nañ ma mam ñi sumay sœur ñi sumay frère ñom ñep maa ngi leen di ñaanal yalla dal 5 ans yi li ñu gis ci président Macky Sall ba votel ko yalla buñ ci am déception yalla nañ ci gis seen bop di ñaanal kilifa diiné yi aussi bép kilifa diiné bu fu kilifa diiné mëna né Mang lay ñaanal yalla tek ko ci loxo suñu kilifa gi serigne babakar Sy Mansour yalla defal len jamm bay len suñu kanam ñu gi de ndax senegal nak ko xol xamni amna ñaan kilifa yi joué nañ ci rôle bu am solo surtout ci élection yi vraiment def nañ discours yi apaisé wax nañu population bi ba lepp jaar na yoon ma ngi sante ñep yeen wa tif Info aussi vraiment ñi ngi len di sant di len gërem di len wax ni contane nañu ci émission bi ngeen ñoo def ko ak ñun donc di ñaan tamit seen site bi ngeen am yàlla na dund ba nekk télévision yàlla mën na ko parce que tamit wàññi boo gis ci benn lay commencé tey ay Bougane Dany ñoom ñëpp seen ay magazine lañ démarré ci magazine la démarré donc dem ubbi seen ay site dem ba yàlla indi télé kon tamit lii nii gëm-gëm la rek nit nag da ngay gëm sa bopp waaw gëm ni que te yéen ci yoon wi ni lii ngeen def ëlëk mëna doon télévision waaw da ngeen di fexe donc ñun ci suñu jàppandal ak suñu connaissance dinañ fexe ba ngeen jéem am ay ay émission au niveau national dugg Dakar fexe ba toog ak ay yenn ay ministres ay directeurs généraux fekk leen ci seen ay bureau waxtaan ak ñoom ci loolu ñëw tas ko ci dëkk bi tas ko ci kii bi su yàggee dina dem ba mbir mi dina dem ba au niveau international loolu tamit ñun luñ ci mën ci jàppale leen ko danañ ko def bu soobee yàlla ñu ngi leen di encourager Eh, di leen remercier di gërëm nag ñëpp di gërëm vraiment ñi jàppale ñëpp ak ñi ànd ak man ñëpp ñëpp ñëpp ci politique su ma limee mën naa juum mais xam naa ni daal am naa suma ay frère sama ay sœur sama ay yaay sama ay tante sama ay papa yoo xamante ni que ñu ngi ci sama ginnaaw ñu feeñ te du bisu woote jotee danan gën a voté jigéen ñi danañ gën a def ay meeting di ci jàpp ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen di leen wax ni

ak ci élection locale yi ñu jëm ak coow yu sew lañ ko mën a tuddee yi nga xam ni yëpp am na ci biir euh, APR wala Benno Bokk Yaakaar par rapport ak comité électoral yooyu donc dañu leen di jaajëfal rek sunu mbokk internet yi ak sunu abonné tive info yi euh, di leen wax ni euh, l'honorable Matar Diouf moom lañ dalaloon fii ci TV info ci sunu deuxième numéro bu ñuy wax émission yaatal di leen jox dig daje. ba beneen incha allah ak beneen responsable